danoo def benn taxaw seetlu ci xutba yi nga xam ne am na ci korite gi korite gi nga xam ne mi ngi yamoo woon ak ñaari fan ci weeru tubaab euh, di altine euh, deux mille vingt deux ñi ëpp ci sénégalais yi wala ci àdduna bi sax ni ma ko waxe woon julli nanu tey ma seetlu ci xutba yi nag ak ci message yi ci jàll yi ci ëpp yépp dafa jëm ci jikko jikko ju rafet jikko lan doon waxtaane jikko boo demee ci ku mel ne xalifa général de Mouride Cheikh Mamadou Mountakha jikko ak yar loolu la doon waxtaane loolu mooy doon waxtaanam boo demee fële nga xam ne moo di guy ma saalik sëñ Moustapha am sëñ Abdou fa jiite ci loolu la doon waxtaan boo demee fële nga xam ne moo di grand mosquée bu ndakaaru te njiitu réew ma di fa jullee ka doon def xutba ba daanaka ci loolu la doon waxtaan jikko yi yàqu yi jikko yi nan lañ koy defaraate euh, même président ci boppam loolu la doon waxtaane jikko yi ak yar bi loolu la doon waxtaane kon day mel ni euh, loolu nag boo ko déggee sa xel du dem fenn ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne li tax ñu yónni ko ak mu dikk mottali jikko yu rafet yi moo tax jikko yu rafet yi kon day wane ne am na jikko yu ñaaw yu fi nekkoon jikko yu suufe yu fi nekkoon yoo xamante ni yonent bi dafa bëgg a mëdd dëkk jikko yooyu ba du amati euh, sunu borom tabaaraka wa la bi muy yabal li nga xam ne moo di doomu aadama ci kaw suuf mu nekk ki ko fi nekkal rek représentation sunu borom xañ na duma ma waxee noonu sax ndax sunu borom. kuy umpule wala kuy kuy wuute moom la ñuy représenté fenn waaye suñu borom représenté wul benn fenn daf koo def xalifatullahi fil ardi maanaam xalifa boo xamante ni mooy xalifa nekk ci suuf ki nga xam ne suñu borom da ko fee wàcce ngir mu nekk fi xalifa ci suuf waaye xalifatullahi fil ardi di xalifa suñu borom loolu moom da ngay yëg ne daanaka amul sax waaye ndax suñu borom wuutewul fenn fu wuute ku woote mooy am xalifa représentation fenn waaye moom wuutewul waaye bi muy yebal malaaka yi di yebal ne doomu aadama lay yebal ci nit malaaka yi dañ ko wax ne ko waaw yow da ngay yebal ci nit koo xamante ni dafay tuur deret dafay nekk di def lu nekk di fa wane ay jikko yu ñaaw di fa sàcc di fa def lii sun borom ne leen xam naa lu ngeen xamut daal ne leen won leen suuf ne leen suuf si lan ngeen ci mën a def ñoom mënuñu cee def dara mu won leen lu mel ni cin ne leen cin lii luñ ciy def xamuñu ko mu won leen ndox xamuñu lan lan ci aajowoo ndax malaaka du lekk du naan mu wàcce doomu aadama ci suuf mu jël suuf si di ci bay di ci génne or di ci génne jamaa di ci génne pétrole yooyu yëpp doomu aadama di ko def ndox mi mu dëkk di napp ay jën nit ñi di ci jariñoo nekk ci suuf di ko dundal kon doomu aadama sunu borom da ko fee wàcce ngir ay jikko yu rafet yooyu bu demee ba xutba gii nag ñu koy wax di ci wax ci jikko yi sunu kilifa yëpp di yëkkati jikko loolu li muy wanal mooy ak togg la goo xamante ni saa bu nu fàttalikoo togg gi saa bu nu fàttalikoo xorom si rek benn dafa wex wala mu ëpp maanaam xorom si togg saa bu nuy fàttali di wax neexaay ya di ko wax di ko wax ba tudd xorom ak kaani benn dafa manqué wala mu ëpp euh, loolu loolu mooy kii bi kon nag dafa mel ni jikko yi yàqu yi dafa ëpp mu demee ba sunu ku ku toogaat ci sa bopp rek nga wëndeel sa bopp lii xew ci jamono bi lii xew Sénégal doo mën a wax dara dara lu dul jikko yi moom yàqu na ndax yow da ngay wax ne da nga ciy génn sa bopp wala nga wax ne njaboot gi njabootu kinaara la wala nga ne inde bi moo ko suusandoo ñëpp a yekkandoo yàkkandoo déedéet genn góor gu baax wala kilifa gu baax dana wax na lu jamono yàqu-yàqu nag yow ah ba mënoo ci dara nag na nga mën a defar sa bopp nag sa bopp moom warulaata moom wax dëgg yàlla sa bopp moom warulaata te sunu borom bi mu nuy wax sa bopp bu buñ ko waxee mooy yow ak sa njaboot suñ borom dafa wax ne xu anfusukum wa ahlikum naaran euh, moytu leen sawara te ko seen njaboot moytul ko seen bopp gannaaw kon moytul ko sa bopp nag mooy nga yar sa bopp ci jikko yu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na fu koy tagg foo xamante ni dañ ko wax innaka ala la xuliqal asim dañ ko wax ne ko yow jikko ju rafet nga yor jikko ju tedd jikko ju rafet a rafet nga yor jikko jooju nag Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa wax ne loolu moo ko indi bi mu ko indee nag sunu borom dafa wax ne irhamu man fi lardi yarhamu man fi samaay ñi ci kaw nan yërëm ñi ci suuf ñi ci kaw nan yërëm ñi ci suuf ndax ñu yërëm leen ñoom kon ki ëpp doole na yërëm am réew nag saa bu ne demee ba jikko yi yàqu mooy société ba yàqu na dund fa amatul neexatul euh, dara baaxatu fa ndax la gën a baax ci ñoom mooy jikko yu yàqu jikko yu yàqu nag du dara lu xol bu yàqu xol bu defaruwut Luqmaan ba mu toogeek doom ja di ko wax ne ko ñu indi gàtt bi ñu rey ko defar ko indi ko mu ne ko seetal ma li ci gën mu indi ko xol mu delluwaat ne ko seetal ma li ci yées mu dem indi xol kon xol bu baaxee lépp baax na bu bonee lépp baax na te sunu boroom ci alxuraan daf ñuy wax ne nu liy defar xol mooy jàng alxuraan ak julli inna salaata tanha anil faxsaa wal munkar julli day dindi ay ñaawteef moo tax nit kii julli da ngay gis ci xolam leer goo xamante ni moom du xam sax leer gi fan lay jóge day soppeeku ndànk-ndànk béréb bu mu doon dem di jëwi yenn saa yi day bu bëggee dem du mën a dem béréb bu mu doon dem di naani sàngara yenn saa yi day toog jikki-jikki di ko bàyyi ndànk-ndànk bu mujj fàtte na yu mel ñaawteef yooyu sax ku koy nettali ko ne daa nga ko def sax da koy mer ndax mujj na fóotoo fóotu ba set yiy fóot nag mooy alxuraan ak euh, julli ak nekk ci lu baax ak takkoo ku baax ku baax ku baax nag takkook nitu yàlla wala wàlliyu li wala fii di wax naa wàlliwu day wàlle sang day sange ñooñu ngay takkool bu nu demee ba genn kilifa amatul orma gun ko gun ko gun ko jox genn kilifa goo xamante ni mën ngaa wax sa maqaama ak sa daraja rëy na ba nga mën a wax te ay nit duñ ca teg lu ñaaw amul amul loolu kenn amatu ko moom daraja jooju moom internet dindi na ko moom daraja joo xamante ni benn baat la woon genn kàddu la woon ñëpp weg la loolu moom internet dindi na ko ak lu sa daraja rëy rëy ak lu sa maqaama rëy rëy boo waxee bu subaa ka gën a doon nit ku gën a tuuti gën a néew xam-xam gën a néew ab juddu gën a eh, yareediku dana xëy wax loo xamante ni loxo dina dem gémmiñ loolu nag ngay wane ne kon lii ñu ittewoo réew mi di ittewoo di tabax ay stade ittewoo di tabax ay tëli ittewoo di tabax yooyu yooyu yëpp yu baax la waaye nanu ittewoo jikko yi jikko yi responsabilité nag dafa am ci ñu ci bari ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man raxaa mun munkaran fal yu xayri bi yi wax ne képp koo xam gis nga lu ñaaw lu bon nanga ko dindee sa loxo boo ko mënta dindee sa loxo nga dindee ko sa làmma boo ko mënta dindee sa làmmañ nga ñaawlu ku nekk xam na ne kilifa diine mën naa wax mu deñ ci loxo ci ci mën naa dindee kàddoom waaye ki mën a dindee loxoom nag dëgg dëgg nag mooy état président Macky Sall nee na yar bi mi ngi tàmbalee ci kër yi loolu lu wér a wér la lu dëggu tamit nit ki dañ koy yar état daanaka mënta yor état organiser la man organiser ak euh, ak xàjjale maanaam état daal. xeex ñuy xeex mu àtte leen la man waaye moom mënta àtte xeex sax mënta àtte xeex mënta mënta kii xeex laa bëgg a wax àtte xeex la man mooy difficile nit ñi koy jëm ne koy jëm ne ndax parce que état ni Macky Sall wax état buy jot ci nit ki booba liberté dafa am mooy droit dafa am booba mënatuñ koo def lu dul amatul fu ñu koy yare dañ koy kii rek dañ koy organiser denc ko tëj ko kii ñu teg koy daan kii ñu teg ko waaye amul fenn fu mu koy jaarale ndax état bu mënoon a saa boo gisee nit ki génne kaso day ñaan yàlla du fa dellu waaye duñ ko yar bu génnee kaso da ngay am ñoo xam dégg nga sax ñu ne dañ lay wax ne la bul jël sama place da ngay lay génne bët set ginnaaw suba nga demaat man am na ko may nettali fii damaa bañ a tudd benn xeet ak yooyu nee na da nit fii ci côté yi Touba Belel gi man tudd dëgg benn kii yu fa nekk nee na da ngay jàpp nit bu ginnaaw suba mu romb la di la nuyu nga naa ko kii mën a xàmme woo ma nga ne ko ah xàmme naa la mu ne la man mii nga jàppoon bërki démb man nga jàppoon bërki démb koo am barke nga ko jàpp mu fexe ba génnaat te la nga ko jàppe woon ak ñàkk jub la ñàkk jikko ju rafet la mbokk yi na ku nekk laat sa bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu nekk kenn ko fay fekk boroom jikko ju rafet jikko ju rafet nag mooy nga sàmmonte lépp loo xamante ni jikko da koo bëgg réew mi bu njëkk dañ daan xas nit ñi boo leen xasee nit danga ko daan xas sax mu gàddaay kii ba amoo jom del am fulla amal looy jomb la xamal sa bopp xamal fi nga bokk yooyu yëpp mag ñi dañ ko daan wax bu ko defee nit ki fii dégg ngeen sëñ Fallou bi nu waxee ne fas bi nga xam ne da ko doon fi da doon yedd rek nit ñi bu njëkk yedd leen gën a ragal cib yar waaye léegi amatul lu ni te ka ka nga gën a yaakaar fa nga gën a yaakaare ne moom ñooña ñoo war a jomblu ñoo jomblu ndax nit bu fekkee dafa jombluwut lekk loo xamante ni alal réew mi la njiit ku nu teg njiit te yàlla njiit ñu néew la koy def askan wu bari ñu néew lay def njiit yow responsable boo mën a doon responsabilité maire responsabilité maire responsabilité commune responsable préfet yooyu yëpp ay ba ci responsable ministre ba ci gouverneur ba ci responsabilité euh, président yooyu ñu ko yàllay jox ñu néew la bu la ko ci yàlla joxee war ngaa jomblu dara ji jooju la yàlla jox war ngaa jomblu ba yu doye di nga bañ koo def waaye ñaari fan dégg ñu ne lekk na kees lekk na nangam def na nangam buñ la defee tamit kilifa ak diine goo xam ñépp dañ lay xool seen bët di la dégloo seen nopp nga mën a taxaw di wax wax joo xamante ni wax ju suufe la ju doyadi loolu moom kenn xamut walla ñu ne la ab ustaas nga nga war a jàngale diine yow léegi nga ne ñukk diine jëfee di jàngale leneen lu bokkut ak diine bu boobaa li ñuy wax ne hôpital bi malaat bi dafa feebar jëm si ci médecin bi fekk médecin bi moom feebar ba tëdd yow mi doon faju su nan ngay def mooy da toog rek dee foofu lan àgg ci jikko kenn koo mën a doone référence amatul waaye jikko yu suufa yi moo bari am na koo xam ne xaalis lay jaam am na koo xam ne xaalis lay jaam am na koo xamante askan lay jaam am na koo xam ne daraja lay am na koo xamante ni da ngay gis yoo xamante ni daa woo ko gis ci bu jëkk koo xamante ni dañ lay wax ne la sab géwal la moo lay ànd ak yow nangam sa géwalu judd wala géwal fu mu doon bu masaana dikk jub sa kër sax daanaka ay dàllam ci biti la koy summi ci ci du àgg mukk mukk sa néegu biir du ko xam léegi nag bu ñu demee ba kooku mën a dugg di xam sa néegu biir di dem loolu waxuma ne ñooñu kenn waratu jëmuma ci xeetu ne diw sàngam daa war a kii waaye damaa wax ne nit ku nekk wax dëgg yàlla ka nga amoon mu lay tagg di la teg ci kaw te yi tamit nit ku amoon wëllër lay doon ñoom wax nañ ko da ngay daan dem ci xew amoo loo maye ñoom ñu dindi seen xaalis jox la may la ko ngir siggil la ngir sëggal la ngir siggil la léegi nag bu fekkee nit koo xamante ni fa mu warul woon a jële jabar fu fa suufee la fa daan doon ko ko kii leen fa daan léegi mu dem ba yor fa maqaama moo xamante ni man nit koo xamante ni alal tax mu dem di sëyi ci askan woo xamante ni bu njëkk daaw fa sëyi kii di dem di jëli foo xamante ni bu njëkk daaw fa dem jëli li ko waral dara waralu ko lu dul alal lu dul alal loole lépp nag li koy collecter mooy kenn gënul kenn waxuma kenn moo gën kenn ndax lislaam moom moom mii organisé xam nit dafa wax ne inna akramakum indallahi atqakum kon kenn ku gën kenn amul alxuraan wax waxaat na ko ne que dama leen bind ñi nekk ñu weex ñi nekk xees ñi nekk kee li taxarafoo dama leen a bind ngir ngeen wuute waaye ngëneel nekkut foofu ngëneel nekkut ci diw lawbe la diw pël la diw séréer la diw ki ne amul kenn ku ci gën sa morom ci xeet yooyu amul kenn ki ci gën daal mooy ki gën a ragal yàlla te loolu la suñu borom wax ki ci gën a ragal yàlla waaye nag mbir mi nag dellu nan ba jikko yi nag suufee na suufe goom wante ni jéggi na dayo ñu ngi jégglu bu baax xam naa leen bëgg a wax sax euh, doo xam fan ngay tàmbalee ndax ci sa weewu tàng wax de yàlla boo dee wax ci jikko yooyu nga war a tàmbalee yow ci sa bopp nga yaa war a vérifier sa bopp fan nga toll ci jikko yi ngay wax boo xoolee fi nga ci toll bu fekkee baax na nga kii te gaw ma ne kenn mën naa vérifier ba ne baax na yoo koy dangay ngay vérifier ne naa jëmaat kanam naa dolliwaat naa góorgóorlu waaye baax na moom jàpp ma ne kenn waroon dafa am yoo xamante nii nag daa àgg ci dée ba xam nga kaas bi nga xam ne kaasu weer la bu toj jàpp naa ne kenn mënatu koo defar nag kole koo defaraat kenn mënu ci dara dafa am ñu àgg foofu nag ciy jikko ci suufee ñoo xamante ni moom kenn mën a kaasu weer bi daanu na ba toj moom kenn mënatu koo kii wala fi dañ daan wax naa